maa ngi leen di fay. Euh, man maay euh, maître Massokhna Kane avocat nekk euh, président de SOS consommateur. d'accord monsieur Kane gis nga jamono ji ñu tàmbalee ko rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni consommateur yi ñu ngi koy dund rawatina ci wàllu dund gi. Hmm. bëri na trop léegi yéen nga xamante ni yéen nekk ci kuréel gi nga xamante ni ñoom ñoo fi teewal consommateur yi naka nga ko gisee. ah niñ ko gisee daal mooy naqarlu ko te itam euh, jéebaane ko parce que ñi ci war a wax dëgg dëgg dëgg waxuñu ci mooy état mooy pouvoir bi mooy particulièrement ministère du commerce parce que jënd la ak jaay euh, li ñuy jënd dañ koy consommer kon ñi koy jaay bu fekkee ni euh, état bi du leen contrôler bu fekkee ni ñoom it lu leen neex jaayee parce que dañu wut bénéfice bu fekkee ni ñoom ñi nga xam ni ñooy jaay euh, bu amee benn marchandise boo xam ne bi dafa xaw a jafe ci marché bi ñu yokk njëg bi ba ci transport bi gis ngeen bu veyu feet euh, boo buggee dem ci région yi dem julli ji ci région yi euh, ni ñu yokkee pass yi et tout donc occasion bu ñu am pour yokk njëg bi danañ ko yokk donc loolu dañuy lor askan wi état bi itam am na njëkk yu yokk yoo xam ni état bi mooy responsable pourquoi parce que dafay am taxe yu bare bare bare yuy tegu ci njëkk bi mooy taxe à la consommation te loolu population yi ñoo koy supporter boo jëlee benn exemple mooy essence essence xam ngeen ni essence yokk na fi temps yële passé parce que ñun la guerre beeg nangam nangam ger bi moom lay la guerre bi nekk Russie Ukraine loolu mooy lay la ak Covid 19 loolu lañ lay wax mais bu ñu boo xoolee essence bi njëg bi ni mu cher li ci ëpp yëpp ay taxes la du dugg ci poosu ñuy jaay essence mais ci poosu état bi lay dugg état bi bu amoon yërmande ci askan bi euh, dana wàññi taxes yooyu wuti feneen xaalis parce que dafa mel ni état wu Sénégal ñoom euh, fu ñuy wute xaalis rek mooy impo ak taxe euh, ci yooyu la ñuy am xaalis ak douane mm-hmm. waaw looloo tax dañ cee tar Euh, frais yi day yokk ci yooyu yëpp toujours alors askan wi nag ñun niñ leen mën a défendre mooy bu ñu gisee loo xam jaaduwul ñu dénoncer ko euh, itam léeg-léeg ñu def ci yëngatu bu mel ni euh, affaire bi xewoon hôpital de Dantec ci fan yi ngeen gis ko def nañ ci point de presse am nañu ci def ay marche ñun bokkoon nañ ci marche bi ainsi de suite mais responsabilité état la mm-hmm. te comme ni ma ko waxee njënd ak njaay boo gisee euh, population bi am jafe-jafe c'est parce que askan bi dañ leen livrer commerçant yi lu leen neex la ñuy def mm-hmm. nga am na ay organisation commerçante yoo xam ni ñu ngi jéem a artu seeni ñooñ euh, ku ci mel ni UNACOIS yeesal parce que gis nañ seen président di ci wax mm-hmm. mais mën na lu ñu leen dara parce que euh, li ñuy wax loi de l'offre et de la demande loolu la comme j'ai dit bu amee marchandise bu am jafe-jafe euh, bu am pénurie comme ay soble bi am temps yëpp mhm. euh, dañuy gis commerçant yi leen neex la ñu yaayee te kenn moo mënu leen dara euh, am na quelque fois yoo xam état intervenir nee na mhm. jël na marchandise bi jaay ko jox leen njëg yi wala jaay ko def ko ci keesam mais loolu réglé wul problème bi. changement ci ci wàllu woowu parce que kilo soble fi mu nekkoon ba tey mu ngi fa ñi di ko jëndee 1500 ñi di jëndee 1300 donc lan lañ mën a xaar ci ci. am na problème ci régulation bi régulation bi mooy euh, agence de régulation des marché ak ni ñuy euh, importer ni ñuy autorisation importation soble bi par rapport à soble bi ñuy bay fii euh, bu fekkee ni dañu arrêter importation bàyyi soble bi ñuy bay. te soble si ñuy bay encadré wu ñu baykat yi pour que seen mbay bañ a yàqu ci àll bi ñu mën ko indi jaaye ko prix bu normal pendant ce temps ñu bloqué importation yi et bu loolu di waaj a jeex ñu ubbi importation yi à temps parce que buñ ko ubbiwul à temps aussi diggante bi dina am période boo xam ne bi soble mbay mi dafay dafay jeex te soble importation bi ak seegul mhm. donc yooyu yëpp ay période la yoo xam ni dafay tax yëf yi gën a cher mais dans entre li ci ëpp mooy moralisation te foofu liñ ciy wax ñun yàgg nañ ko dénoncer nee nañu dañu gis euh, tubaab yi ñi nga xam ne ñoo fi yore ay grandes surfaces bu feet jubee bu fekkee tension am na ci benn denrée ñoom duñ ci profiter di yokk mais suñu commerçant yi dañ ciy profiter di yokk te loolu jaaduwul looloo tax ñi doon wax ay France dégage ak yooyu ñun d'accord ñu ak ñoom parce que grand surface yi nga xam dañu jóge ci bitim réew bu fekkoon ni sénégalais yi créé nañ yeneen grande surface yu mel noonu wala yu ko gën benn sénégalais du dem di jënd ci ay tubaab bàyyi fi sénégalais yi nga xam ni même offre bi la ñuy def mm-hmm. wante euh, grande surface yi ñoo fi indi jaay ci place yu set pas ay place yoo xam ne day am ay poto poto jigéen ñi duñ fa mën a kii wala nangam nangam euh, jaay ci place yu set mm-hmm. jaay ci ay njëg yoo xam ne njëg yu jaadu la Euh, jaay ci qualité aussi loolu loolu moo tax nu ñu fi jëlee grande surface kenn du d'accord pour ñu jëlee leen mais en tout cas état ñun la ñuy waxal ministère du commerce dañ ko interpeller tout le temps heureusement am na fa quelques responsables ku ci mel directeur du commerce intérieur vraiment jàmbaar la lu mu mën mi ngi koy def mais li mu mën barewul ministre bi kenn dégg ko euh, wax nañ sax ni ministre bi newu fi depuis depuis dégg naa dafa am autorisation absence 15 jours dafa naa dafa dem umra wala yu mel noonu moom itam xam naa ni jigéen bu bu bu bu lewet la wante fi ñu ko teg antunu ko munu ko yore joxuñu ko ay jumtuwaay yu mat aussi donc ministère du commerce tant que baaxul tant que defaruñ ko dooleel ko comme li am France wala Côte d'Ivoire wala feneen euh, consommateurs yi kenn du leen protéger. parce que agent yi nga xam ne ñoo leen war a protéger matuñu amuñu ay jumtuwaay yu mat amuñu pouvoir yoo xam ni aussi euh, mat na donc loolu yëpp dañ koy joytu association de consommateurs yi aussi mm-hmm. ñoom dañ leen jox bopp rocci làmmiñ bi parce que euh, loi de 2021 bi nga xam ne ñun ñu ngi xeex depuis plus de vingt ans mm-hmm. pour que euh, association de consommateurs yi mën a am mën a exercer en justice li ñuy wax action collective loi bi permettre ko mais ñu ne il faut que ministre bi jox ñu agrément ministre bi daaw ba ren mënuñu fexee ba ministre bi jox ñu agrément mu ñuy daw dawloo bañ ñu jox agrément ci loo xam ne lii wekku ko fenn foo xam ne fii euh, leer na ñun nag bëgguñu dem moom ci ci yoon euh, dañuy naxante ba léegi te yaakaar nañ ni danañ ñu ko jox parce que tant que ñun joxuñu ñu agrément boobu ñun du ñu mën a attaquer yenn producteur de biens et service yi du ñu mën a attaqué ku mel ni Sénélec wala Sonatel wala wala wala jaaykat bi wala euh, grande surface bi nangam la am duñ ko mën donc loolu gàllankoor la buñ ñu defal ñun association de consommateurs donc état bi joxuñu ay subventions pour dimbali ñu pour ñu liggéey ba pare autorisation agrément bi nga xam ne moo war a tax ñun ñu mën a agir kenn joxuñu ko te wekkuñu ko fenn. donc yéen dañoo a jàpp bien sûr parce que ñun pouvoir yi ñu yoon jox. pour ñu mën ko exercer il faut euh, ministère bi libéré ñu ni ñuy libéré mooy jox ñu agrément lan moo tax jox ñu agrément agrément boo xam ñaari phrase la wala ñett ñu bañ ñu ko jox te wekkuñu ko fen nag non depuis daaw depuis daaw ñu ngi leen koy laaj mm-hmm. agrément boobu te ñun xeex nañ plus de vingt ans pour am autorisation wu exercer li ñuy wax action collective maanaam xeexal askan bi yëpp ci kanamu justice ci kanamu yoon maintenant que loi bi jox nañu pouvoir boobu ministère bi xañ ñu ko xañ ñu donc ñu mën a exercer action boobu pour le compte des populations parce que simple agrément bi ñu war a jox joxuñu ko waaw loolu lu garaaw la. waaw garaaw na trop. il faut population bi xam loolu. Mhm. waaw d'accord euh, léegi ñu jublu si màggalu Touba ku nekk euh, xam na ne màggalu Touba ruche bu muy def ci wàllu ñam yi ñu fay séddale bernde yeeg yooyu euh, soble manqué na. yaa ngi koy wax léegi ñuy seetlu aussi euh, transport bi bu jege see gars yi dañuy yokk paas yooyu hmm, noonu hmm. en tant que euh, jiital SOS consommateur lan ngay euh, wax rek ci loolu waaw d'abord damay ñaan hmm. yàlla ñaan aussi pouvoir public yi ñu fexe ba Touba ku fay dem doo xuus ci ndox bi ak ci poto poto donc loolu problème bu rëy la fa déjà muy assainissement ak kii eaux usées yi donc loolu euh, yaakaar naa ni état nelawatuñu pour régler boobu problème parce que problème bu grave lay doon ci màggalu Tuuba bi ñaareel bi mooy transport bi njëg yi ak aussi denrée yi denrée yi mën a doy parce que Tuuba bu ñuy wax màggal berne moo tax ñuy wax donc li fi daan am depuis ay dizaine d'années état du Sénégal na góor góorgóorlu ba loolu euh, mën a continuer am Euh, ndax dafay jël disposition yi war a jël ñoom danañ def ay euh, CRD ak yooyu loolu yëpp baax na loolu yëpp waxtaan la rek mais jëf bi moo am solo wax bi baax na mais jëf bi moo gën a am solo nañu fexe ba jëf ba màggal bi mën a euh, mel nam daan mel avant bu dul nu ko gën a baax te loolu responsabilité état bu rëy la ñu ngi ñaan loolu mën a régler ñu ngi ñaanal taalibe yi aussi ñu dal ci màggal gi euh, xat-xat yi du mënta ñàkk mm-hmm. mais nag euh, ñu demee ci yar ak teey euh, ci ci yoon bi mm-hmm. transporteurs yi ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a profiter ci affaire bi mm-hmm. pour dañ leen di ñaan rek pour la forme mais gëmuñu ne sax nañ ko def ñoom dañuy continuer seen mënin maanaam bu client yi bare ñu yokk ñu yokk njëg bi loolu rafetul surtout événement religieux loolu lu ñaaw la waaw de l'autre côté ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les boutiquiers ñoom ñu ngi xam ne rek ñoom ñoom nee nañ ñoom ñoo gën a sës ci chaîne bi ñoom itam li ngay wax ni dafa mel ci cadre yooyu nekk dafa mel ni nee nañ ñoom nguur gi daf leen a néewal doole ba loolu day feeñ seen diggante nga xamante ne ñoom ñooy clients yi ñu ngi doon euh, wax sax ni clients yi nañ leen comprendre que ñoom ñoo gën a nekk ci chaîne bi d'habitude consommateurs yi dañuy ciblé ñi nga xamante ne ñooy boutiquiers yi ñoom ñooy yokk mais ñoom nee nañ ci demi groupe grossiste euh, lan ngay wax loolu. bon li ci ëpp lay la dañuy lay rek boutique mhm. kenn gënu leen responsable parce que da ngay gis benn denrée bu am ci benn koñ mhm. bu amee ñetti boutique ku nekk ak sa njëg lu leen neex la ñuy def mhm. te état bi mënul leen dara donc bu ñu waxee tey di jéem a accuser ñeneen nan on les met population yi dofuñu xam nañu ñan ñoo yokk. ñi yokk mooy mooy mooy mooy boutiquiers yi ñi nga xam ne ñoo mujj ci chaîne de distribution bi parce que bu état ne par exemple euh, def naa sacrifice bàyyi naa quarante milliards euh, tax ak yu mel noonu chaîne de distribution bi xam ni day commencé ca euh, importateur ba wala producteur ba ñëw jaar ci grossiste demi grossiste ba agsi ci détaillant bi da lay wóor ni ñi nekk ci chaîne bi yëpp duñu ñu bénéfice bi ki koy capté mooy kii mujj jaay parce que aussi état bi dafa waroon organiser li ñuy wax les ces étapes de distribution mm-hmm. euh, mais état bi du ko organiser mm-hmm. du ko organiser ba nga xam ne ku ci nekk dañuy xam sa marge nu mu toll mm-hmm. ba ci détaillant bi ñu mën a xam détaillant bi marge am nu mu war a toll mais comme bu ma exemple bi ma joxe quarante milliards bu ko état joxe woon euh, du tax njëg gi wàññeeku à la fin njëg gi mën na wàññeeku ci chaîne bi parce que dañuy wàññi droit de douane yi wàññi kii bu ko defee importateurs yi dañuy fay moins mais même importateurs yi bu ñu fayee moins jaayee ko grossistes yi moins cher parce que euh, dañuy répercuter taxe bi mais bu ñu demee ci boutiquier ba boutiquier bi day continuer di jaay li mu daan jaayee wala muy jaay lu gën a cher mm-hmm. donc li nga xam ne état bi moom la buggoon sacrifier yëpp pour mu agsi ci askan wi du agsi ci askan wi te kook fotu kan la fotu boutique yi la donc bu ñu jéem a euh, nelawal lëndëmal xelu nit ñi naan c'est pas eux qui sont responsables responsabilité bi bu doon 100 pour cent 90 pour cent yi ñoom la. waaw te état bi dafa leen war a teg ay daan yi ci war. koo xam ni da nga jaar yoon état bi dafa war a teg ay daan yi ci war. en ñu ngi ñu ngi ñu ngi ŋàññi bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo waa nekk waa yi. di wax ni taxes yi ñu leen teg euh, cher na genre euh, amende yi ñu leen teg cher na ak li ñuy nangu seen marchandise or que ñoom nee nañ dañoo waroon dem ci grossiste yi ñu rendre compte au si ñoom. alors daan yi nga xam ni moom lañ leen di daan ci ñii ñu jàpp. Mm-hmm. te na la wóor ni bu dee mille boutiquiers xëy na 100 wala 200 lañ ci jàpp ñi ci des ñëpp kenn bu leen jàpp mm-hmm. parce que contrôle bi matewu ko munu ko mm-hmm. donc ñooñu ñuy jàpp sanction yi ñu leen di teg sax. amul doole dañ ko war a renforcer te ci organisation patronale yi am na ci ñoo xam ne ñoom seen bopp sax dañ naan daan yi na gën a tar donc tant que daan yi tarul ba mën leen a décourager dañuy continuer di def li ñuy def donc voilà la la la problème bi yëpp loolu la daan yi tarul tar ba ca war bu fekkoon ni kuñ ci jàpp def la loo xam ne li bu ëllëgee si biir même booy gént sax doo gént def yenn yi euh, bu fekkoon loolu amoon na lii du am donc problème de sanction la sanction yi dissuasive moo amul te loolu dañuy ñaan état bi mu réviser yooyu parce que sanction yi diisul diis bi ci war euh, mi ngi mel ni rek faux médicament yi ñiy jaay faux médicament yi yooyu uh-huh. bu ñu leen jàppee sanction yu tuuti la alors que ñooñu dañ leen woon jàpp tëj leen ci kaso bi ba pare teg leen ay amende yoo xam parce que comme ay reykatu nit la foo faux médicament ñëpp xam ne day rey voilà donc euh, yooyu yëpp ñu merci beaucoup jërëjëf maa ngi leen di sant aussi euh, euh, di wax population yi ñoom itam mhm. dañu am wàll ci xeex bi parce que sénégalais dafa bëgg lu yomb mhm. dafa bëgg toog rek muy dox loolu mënta sotti bu ngeen nekkee ci koñ yi mhm. ñu leen di teg loo xam ne jaaduwul mu wóor leen ni jaaduwul jóg leen ngeen organiser wu ngeen bañ ko parce que koñ bu nekk quartier boo gis am na délégué de quartier am na ay jeunes yu fa nekk ñun dañu mës a proposer association de consommateurs dañu mës a poser ñu def li ñuy wax les volontaires de la consommation ñun au niveau de SOS consommateur proposer nañu sax nañu jël jeunes yi ci quartier yi ñu nekk ci euh, kii euh, ci organisation des jeunes yi ñu jël ci ay volontaires volontaires de la consommation mm-hmm. yoo xam ni yii dañ leen di prêter loo serment former leen en deux trois jours ñu mën a contrôler boutique yi parce que chef de quartier yi mënuñu ko euh, mag ñi nekk ci koñ bi aussi mënuñu ko parce que ñoom ñooy jëflanteeg borom boutique yi leen di lebal et tout ça mais jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci koñ bi am ci ñoo xam ne ñu sax ñooñ bu ñu leen jëloon former leen au contrôle xam ne ñoom lu ñu contrôler même bu ñu assermenté wul dañuy mën a ànd ak agent bu assermenté boo xam ne bii dafa dafay euh, constater infraction yi comme euh, ni ñuy def ak policier yeeg euh, ASP yi. xam ne dañuy mel ni ay ASP par exemple. xam ne ñoom bu ñu ñëwee constaté ci boutique yi jubadi gi ci nekk. ñoom dañuy woo benn agent du contrôle boo xam ne il est bu fekkee ni ñoom kenn assermenté wu leen mu constaté infraction yi ñu jël ci ay daan yu yu tar yoo xam ni borom boutique bi dootul gént sax def yenn yi donc loolu la ñuy wax te loolu euh, population yi dañ ci am rôle bu ñu war a jouer mais état moom war a organiser loolu lépp. mais état nag def ko donc défaillance bi yëpp état bi la et encore une fois comme je dis il a des responsables qui ont disparu de la circulation ah parce que ministre bu mën a absenté quinze jours loolu loolu kéemaan na ah mm. sa département kan moo koy diriger surtout ci période bi sa département sa directeur sa secrétaire général yu bare ñoom duñ ko mën a def dañuy obligé toog di la xaar waaw ministère bu lëmm nu mu mën a toogee 15 jours wala 20 jours boo xam ne bi euh, liggéey loolu musiba la musiba la ci consommation surtout mhm. voilà. merci beaucoup monsieur merci à vous merci maa ngi leen di sant yéen itam mhm. seen liggéey am na solo parce que yéen yéen ay tas xabaar yi et loolu dafa am importance ci askan wi parce que dina leen euh, informer d'abord ci réalité yi ensuite éveil de conscience mhm. mais population Sénégal wax dëgg yàlla hmm, dañu nangu ba mu ëpp ah li ñuy wax le Sénégalais il aime les gens courageux mais il n'est pas courageux keroog d'ailleurs am na Guy Marius Sagna wax na leen ko na ko amul ñoo xam seen yaay daf leen daf leen mettre au monde pour ñuy ñuy ñuy kii ñuy marche ak ñoo xam ni seen daf leen mettre au monde te duñu marché bu fekkee yaay une yow kii di la xeexal yow boo ñëwee da nga war a ko bokk ci xeex bi mais bu fekkee da nga ñëw rek sant ko gërëm ko ñaanal ko daal di dem sa yoon ah yow lay xeexal ça devient un problème sénégalais yi lool la de mm. da gis réew yi ñu wër des fois dañuy yokk quelques francs rek ci benn denrée rek ñëpp wàcc ci mbedd bi ñu naan la y deux morts trois morts sénégalais loolu du fi am sénégalais xalaatuñ ko bombe euh, euh, grenade lacrymogène sax bu tàkkee ñëpp daw kenn du fa des